ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy musique sénégalaise te jamono ji mm-hmm. euh, gis nañ kenn koo xam ne euh, mi ngi ci musique bi mais mi ngi def évolution bu am solo parce que mm-hmm. gis nañ ko muy évoluer bu baax a baax jamono ji daanaka doo tudd musique sénégalaise te tuddoo ko muy Wally Seck nan nga gisee liggéeyam déjà waaw Wally Seck euh, wax naa ci moom waxati ci moom mm-hmm. parce que nag moom sunu frère la du suñu nawle te boo toppee ba ci biir ñu ñëpp benn bopp la ay mbokk lan mhm. du dëgg mu nekk nit koo xam nag jàmbaar la ci li mu nekk ah. parce que waal boo ko gisee ni mu doxee nga war a xam ni euh, ni mu doxee caaxaanu ci mhm. kafu ci réewu ci mhm. te dafa ñemee investir dafa ñemee def ci musique waaw tey boo nekk lumière dix millions da koy génne def ko ci rey boppam nag gëdd ñu mu nekkal doxal ba téyewaat loolu xool lim ci gagné nit noonu lay doxe ba usi nag aussi fu mu teg bëtam baax na ñu ko am naa ñu ma xam ñoo xam tamit ñu ngi ci di waxtaan ak moom. Mhm. di magal. Mhm. vraiment nekk ay doomu aadama yu yu baax. Mhm. yu gën liggéey. ñu ci wetam loolu amna solo. d'accord jàmbaar la gis nañ tamit ay wax yoo xam ñu ngi koy di ko ci deram ak daanaka yow mbokk musicien am nga. ñu ngi ay wax yu ñaaw di ko euh, ci deram jamono yee déggoon nga ko yow lan ngay wax euh, ci loolu. waaw loolu li ma wax nit mom ci benn côté bo boté bouclé la xajin la mhm. waaw euh, euh, nit xana ñi may moytu rek ñi ndaw ñi may mhm. moytu rek parce que li ñu boot daa ñoo siw ñun ñoo siw bu ñu déggé tay Sénégal dégguñ suba Hollande na suba Japon na suba Australie wala Canada kon dañuy moytu rek mhm. mais di dajé ay ay ay ay ay wax ak lo xam dalay dalay dalay dalay dalay dalay boo dalay down du mëna ñak waaye dañuy gumba texlu rek te teg ko fu baax moom way na ko sax nee ku may séentu ci gaalu xaj mhm. doo ma ca fekk may lekk mhm. loolu rek moom solo na mhm. nga ko teg foofu rek góorgóorlu